salaamaaleykum euh, Madagascar su jaaree Sénégal daf ñuy delloo fu sore sore sore mën naa ne tey la fi Madagascar ñëw waaye sénégalais yi dem nañu fa dès 1960 ci nag lu jafe woon équipe bu jafe woon dafa jafe woon ba Senghor ci boppam dugal na loxoom ci construction équipe bi booba temps ñu ngi tendre vers la fédération du Mali Sénégal Soudan français tey jii di Mali et comme Modibo ak Senghor bëggoon nañu booba temps Euh, fédération bi tegu ci yoon ak impact bi sport am Senghor doon demande Sénégalais yi ñu bañ jël yëpp ba seddoog Soudanais yi tey jii ñoo di Mali ci boobu équipe ñu au jeu de la communauté en 1960 Sénégalais yi jëkk sol maillot équipe nationale Sénégal en 1960 Madagascar la ñu dem sama invité bi ci ñooñu la. Madagascar bi fi jaar bërki démb ñu dem fa Madagascar mu ñëw 4 jours après loolu moo ko indi événement moo ko indi kon l'invité mën naa ni c'est un des premiers internationaux sénégalais son nom vous est familier son visage vous est familier parce que yàggul nekk na fi président section football bu Jaraaf euh, euh, moom Alioune Diaw il est dans tous les fora là où on parle football di ngeen ko ci dégg parce que source la moom tamit Alioune ma jébal la kàddu gi. ci waxtaan bi nga xam ne tey dafa di sa bos. Madagascar la ñuy waxtaanee yéen yéen a jëkk jël maillot bi dem Madagascar su la bannière de la fédération du Mali. ma bàyyi leen ngay nuyu say soppe. ci biir Ndakaaru Ndar Ndakaaru Thiès Kaolack Louga. parce que bare nga ay admirateurs depuis le maillot di foyer France Sénégal. Abdoulaye maa ngi lay sant di la jërëjëf Diaw. je crois je crois que premier événement la pour man ñëw ci rajo bi. ak télé bi wax ak ci télé yàlla ak yow. jërëjëf Diaw. yàlla def mu nekk suñu kër nag. voilà exactement parce que Youssou suñu jarbaan la. oui suñu doom la. wax nga dëgg. ñun ñëpp Medina lañ bokk. wax nga dëgg boo dee seet sélection bi cadre yi yëpp Medina lañ jóge. est-ce que. Rue e. waaw. Fala judo maag sama mag Kalidou Diaw. Kalidou Diaw ak Jean Pierre Sène. 100 mètres moo ñu séparé. waaw ñu ñoo nekk le premier international ak Petit Tall. wax nga dëgg. Petit Tall. ci Dakar ñun kaat nañu. wax nga dëgg wax nga dëgg. ñun kaat nañu wax nga dëgg jaw donc euh, bu àdduna lay dox ñu nekk Médina. ba di nekk équipe nationale. tey ñu ñëw fii toog kër yi si wax nga dëgg. dañuy interviewé ci affaire boobu dañuy kontaan. wax nga dëgg. processus bi la dafa guddoon sélection bi dafa métti woon. pour taxawal équipe bu fédération du Mali. dafa métti woon parce que sélection régionale moo am waaw. ñuy daje. di tester di daje chaque fois ñu élagué. génne ñenn ñi téye ñenn ñi ñu dem ba mu des seize. seize la ñu woon au Sénégal. seize sénégalais. Dakar amoon na ci presque huit. Saint-Louis amoon na ci une dizaine. waaw mais en fin de compte daal douze yu mujj. waaw cadre yi Dakar la. waaw muy Jean Pierre Sène man Petit ak Kalidou. Kalidou Diaw sa nekkoon Dakar. ñun ñoo yoroon ligne d'attaque bi parce que euh. départ bi. Euh. ba bi sélection yi jeex ñun nañu jël parce que on ne marque pas moins de trois buts. wax nga dëgg par match. par match est-ce que. alors de sorte que ñun la ñu jëloon à Saint-Louis y avait douzaine. Euh. y avait Blé Guèye. y avait David. waaw y Omar Ndiaye cinq yooyu. <laughs> fàttewoo leen bu fekk non non non. Thiès à Thiès y Camara. il y avait délégué. délégué Mamadou Ndiaye. donc douze yooyu. voilà ak yeneen cadre ñoo fi jógee dem. Mali Soudan Soudan fédération. waaw kon mi ngi nii équipe bi nga xamee ni moom la Alioune jaw di waxtaane kii mooy la première équipe nationale du Sénégal nous sommes en 1960 groupe bii moo fi jógee jëm Madagascar bi ñuy dem Madagascar nag dañu tëkk jaar Bamako. parce que booba temps ñu nag Soudan français tey jii di Mali nous sommes en fédération muy la fédération du Mali suñu invité bi moo nekk nii ci kaw troisième à partir de la droite moo nekk nii ndeysaan ki ci gauche am magama ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñi d'ailleurs ñoo nekk les premiers frères en équipe nationale du Sénégal moom mu nekkoon foyer France Sénégal frère am Kalidou Diaw nekkoon Espoir Dakar tey jii ñaari équipe yooyu ñoo fusionné. nekk jaraaf de Dakar kon kii moo nekk ci plateau bi moo waral waxtaan wi bi Madagascar jaaree ma ni aliwun Diaw dana ñëw waxtaane bii épo kon ma dellusi ci à ci ñi taxaw à fële à gauche c'est Daouda Diagne qui de la Saint-Louisienne après Daouda Diagne c'est Jean-Pierre Sène de l'US Gorée Bouba Diaxaw moo nekk noonu ci troisième à partir Euh, de votre gauche kii taxaw ci euh, wetu Bouba Diakhao te takk lunettes yi ñu ko daan wax Saliou Sow Sall ku ma laajoon le meilleur gardien de but sénégalais de tous les temps kii laay jox Saliou Sow Sall bu adversaire bi amee penalty wóorul mu dugal ko parce que dafa daan jàpp sax penalty moom Saliou Sow Sall avenir de Saint-Louis moo doon équipe am ñëw na Dakar joué fi US Gorée euh, au début des années 50 delluwaatoon na Saint-Louis il a terminé sa carrière moom Saliou Sow Zal à la Saint-Louisienne ci gauche Zal di invité bi ki fi nekk tey di euh, euh, Alioune Diaw ci gauche di magam Kalidou Diaw génn na àddina yàggul fële ngeen seen nag ci euh, seen droite à l'extrême gauche de la photo di Boubacar Bèye mu nekkoon l'adjoint un des adjoints parce que deux adjoints la ñu woon mu nekkoon un des adjoints de Raoul Diagne parce que Raoul Diagne moo yore woon équipe bi en 1960 l'un des adjoints di Boubacar Beye c'est un des premiers Sénégalais professionnels il a joué à Monaco il a joué même en Chine avant muy rentré chez lui au Sénégal à Saint-Louis ñu jonkan ici à gauche Issa Camara mu nekkoon l'autre gardien de but c'était la doublure de Saliou Sow Sall Amadou Seydou Sène moo nekk nii le premier capitaine de l'équipe nationale du Sénégal maa ngi koy waxtaanee souvent Amadou Sey douzaine ci gauche am Oumar Ndiaye ma rappelé ni Issa Camara venait de l'USDN USDN mooy ancêtre US Rail su ngeen ko déggee moo di Union sportive du Dakar Niger douzaine était à la Saint-Louisienne Oumar Ndiaye était était aussi à la Saint-Louisienne ñoom ñaar ñoo bokkoon club à Saint-Louis ci gauche Oumar Ndiaye Badara Gueye Blay yéen a ngi koy dégg moom it mu def réveil de Saint-Louis foyer France Sénégal joué doon ak Lamine Diack au foyer France Sénégal et il deviendra lui le deuxième capitaine de l'équipe nationale bi douzaine demain parce que moom nekk na fi en Abidjan après douzaine après campagne bi le capitaine de l'équipe nationale le deuxième moom Badara Gueye Blay kii di Assane ñu koy wax Petit Tall attention ne pas confondre avec l'autre Assane Tall le bi ñu jógee ci campagne bi dafa dem jouer en France à Paris ci équipe bu ñuy wax Racing Club de Paris ancêtre bu Paris Saint-Germain extraordinaire footballeur lui Petit Tall tudd Assane Tall ki ci gauche am di Mamadou Ndiaye délégué moom on l'appelait en équipe nationale de football et de basket il deviendra d'ailleurs plus tard à la fin de sa carrière arbitre de basket kon jàppale ni ki mooy la première équipe nationale du Sénégal pièce d'archive la d'ailleurs mi ngi ci générique bi dafay gaaw ba du ngeen ci def attention photo bi mu ngi ci générique gu ñëwoon démb comment ne pas mettre ci générique gu ñëwoon démb la première équipe nationale du Sénégal Aliou Ndiaw a nii moo nekk ci plateau bi équipe bii moo fi jógee en 1960 ci yoonu Madagascar jaar ba Bamako pour l'autre moitié moitié Soudan français parce que jamono jooju Mali mi ngi tudd Soudan français fa la ñu liggéeyee jóge fi nag continuer Madagascar Alioune Diaw moom lay évoqué ak man ci plateau bi tey. biñ demee foofu yi ñu def présélection. ñu présélectionné di présélectionné ba finalement ñu retenir seize. muy dafa bëggoon ngeen bañ a séddoo ngeen bañ a jox ngeen bañ a jël yëpp jox euh, soudanais yi. que ñun mënoon nañ jël yëpp. nañ potentialité bi. biñ demee ñoom seen bopp ñoo tànn. Maliens yi seen bopp ñooñu ñii kon léegi groupe baa ngi nii léegi nag ñu ngi avec l'autre groupe bu Soudan français parce que gis nga photo bi ma leen jëkk wan tout à l'heure ay sénégalais kese lañu bi ñu demee ma Bamako liggéey ba équipe bi commencé dégager le boppam dégg ngeen Alioune li mu wax de propres Maliens choisissez des Sénégalais à la place des malien je dois dire choisissez des Sénégalais à la place des Soudanais euh, euh, français Euh, léegi gisoo photo bi ngeen gis ni dama def croix ci sénégalais yi dama ci def croix je commence par votre gauche Mamadou Ndiaye délégué il jouait à l'USDN Saliou Sawzal gisoo euh, kii c'est le gardien titulaire c'est le sénégalais gisoo yaa ngi liir fii ci kii bi ci survêtement bi Mali Saliou Sow Zal lu gardien de but kii soudanais la xaw ma ko à l'époque la presse n'était pas développée en 1960 pour que déjà nga mën identifier depuis Dakar les Soudanais qui sont avec les Sénégalais pour constituer l'équipe de la fédération du Mali kii Bouba Diakhaw la mu ngi noonu kii di Issa Camara la doublure de Saliou Sow Sall kii di Oumar Ndiaye gis nga de yaa ngi liir fii Mali Amadou Sey Douzé na ngi nii kii malien la mais malien bi xam nañ ko parce que dafa célèbre au Sénégal mi ngi tudd Ousmane Traoré Raoul Diagne mooy entraîneur bi Raoul Diagne bi di doomu Blaise Diagne nekk entraîneur bi dès 1960 c'était l'arrière droit de l'équipe de France moom Raoul à la coupe du monde 1938 après ñibbisi na ba joué Gorée bi muy joué Gorée d'ailleurs final na ak Jeanne d'Arc la première coupe d'AOF de football en 1947 léegi ñu ngi fii ci suuf accroupi kii malien la Alioune Diaw moo nekk nii moo nekk tey jii ci plateau bi Petit moo nekk nii après campagne bi dafa dem en France jouer au Racing Club de Paris Jean-Pierre Sène moo nekk nii bu US Gorée ci léegi nii Badara Gueye Blé moom it identifié nañ ko Kalidou Diaw moo nekk nii di mag ci Alioune Diaw mi ci plateau bi kon nag léegi nu sommes à Madagascar et là c'est l'équipe de la fédération du Mali gisoo Alioune de danaa ko yéen bu ñuy bu ñuy décorer ancienne gloire au Mali war nañ leen décorer ndax vous avez été internationaux maliens bu ñu décorer internationaux sénégalais daañu leen décorer parce que vous êtes dans la première équipe nationale du Sénégal bi dem ba ko ànd ak waa Soudan français ngeen génne l' de la fédération du Mali kon équipe bi pièce d' archive la Alioune Diaw tey looloo ko fi indi. waaw préparation yi métti na. wax nga dëgg. ñëw fii jóge fii xam nga Madagascar dafa sore. dafa sore kon gaa ñi gis ngeen Alioune Diaw tur bi dafa fa man dama ko seetaan. d'ailleurs am na ñi sax am naa maak moom am nañu benn anecdote <laughs> def naa ni moom lay tëjee waxtaan wi dama ko seetaan donc admiré comme footballeur moo tax cinquante ans après bi ma amee opportunité invité ko dama ko invité parce que référence la ñu woon euh, pour ñun euh, bi nga déggee équipe bu Madagascar bi di ñëw ce n'est pas la première fois parce que ñëw nañu au jeu de l'amitié en 63 tout à fait sans doute réveillé na ci yow ay souvenirs mais bien sûr gars li ñu foog xam nga il faut que heureusement que sélection bi cette fois ci gis naa ñu respecter seen adversaire oh. l' adversaire euh, euh, euh, Bargas dañu yàgg mën football. wax nga dëgg basket handball yëpp dañ ko mën. dañ ciy yàgg xam nga kii à Madagascar. Oh. yëpp France moo leen éliminé benn équipe africaine gagné wu leen ñoom ñoo joué demi finale contre la France France gagné leen 2-1. ca ca jeu communautaire. waaw en 1962 déjà. déjà ñoom ñoo joué demi finale. contre France France éliminé leen 2-1. waaw après France dem ak Cameroun finale. France gagné Cameroun. donc pour te dire que depuis date boobu ñoom ñu ngi joué. ñu ngi fi woon. ils étaient déjà présents depuis la France présents. ah oui. boo leen gisee ñu joué nii tey bu fekkee ne woon dañu soloon mais Cameroun ñu ne Cameroun loo leen weddi. wax nga dëgg parce que c' est une belle équipe. belle équipe wax nga dëgg. une équipe jouée. wax nga dëgg Diaw wax nga dëgg Diaw alors donc moi je pense que. ñun daal suñu Madagascar bi ñaari événement moo ci gën a moo ci gën a marqué. waaw benn bi mooy bi ñu amee pause. waaw dañu génn ci dëkk bi. Hmm. di dox sol suñu sabadoor di dox. ñu romb benn endroit comme nii rek. benn maison nii. ñu fekk ay ay nit yu toog noonu. waaw ñu xool ñu ñu monsieur musulman sénégalais musulman. waaw ñu ne wuy ñu ñu ngi yor benn téere. mënuñu ko jàng sax. téere alxuraan alxuraan mënuñu ko jàng ñu jox ko Issa Camara Issa jàng ko boo leen gisee. Mm. waaye ils étaient émus. émus kontaan. ndeysaan. tisbaar jot ñu ñu julleen ndoog ñoom foofu. est-ce que ñu passé wu woon dix. ndeysaan. moo bi ma gisee journal bi ñu ne am na quelques centaines de musulmans. waaw ma ne ça ça ne suffit pas. ñuy dem ñu ne Issa dañu bëgg nga dellu si nekk suñu imaam. Mm. le gardien de l'USM USM. mu ni ko danañ la fay cent mille francs par mois nga nekk. à l'époque cent mille boobu temps jaratu ko. oui la ko fay wala boo demee nga yónnee ñu benn imam. ndeysaan. malheureusement suivre ma ndax yónnee na wala dem na. mujjul woon dem c'est sûr woon dem mais comme yónnee na imam. est-ce que alors kooku événement vraiment bu ma marqué woon. gis nga de football la fa yóbbu woon diine marqué la diine marqué la. mag ñaa ngi ku dajeeg ñoom rek dégg. diine diine marqué la waaw ku dajeeg ñoom dégg lu nga xamee ni xamuloo ko woon. gis nga information bi ma jox. Madagascar déjà en 1960 seul France moo leen doon gagné. Eh. ci discipline collective discipline nag. oui oui yëpp France moo leen éliminé. wax nga dëgg kenn mënu leen woon éliminé. wax nga dëgg. donc euh, il faut que ñu jël yooyu en compte. waaw. fa nga jógee fa nga jógee waaw waaw parce que la nga def à l'époque daf lay topp daf lay topp waaw alors donc ñu nekk noonu bu Madagascar beneen événement bu bu war a souligner waaw wax dëgg mooy comme ni ma kii nii dañu toog war a préparer ouverture jeux yi waa Madagascar interrompt seen émission informa journal oh. daal di annoncé Sénégalais les athlètes et les ñu ngi leen annoncé arrivé Abdou Seye. Abdou Seye ba nga champion de France. oui wax nga dëgg. dafa war a ñëw. nga dëgg. le gouvernement met à votre disposition des cars pour nga dem teeru ko. pour teeru ji Abdou Seye pour teeru ji Abdou Seye. qui arrive à Madagascar qui arrive à Madagascar. <laughs> événement. oui oui. y avait a tout le monde seeru Abdou Seye. Uh-huh. ah, ah oui pas oublier sa ah oui ça c'est xam nga Sénégal dafa teel barkeel ne Abdou Seye à l'époque mu dajeeg boobu teraanga c'est vrai que daje naag moom ci benn émission waxtaanee na lii nga xam ni daf ko marqué kon gaa ñi gis ngeen. ce visage qui vous est familier bu Alioune jaw Sénégalais yi jëkk sol maillot équipe nationale génne ko ci biti. Madagascar lañ jëkk dem en campagne. mais nag Alioune. am na lu am ci yéen loo xam ne ni ku fi international yéen a ko gën gradé. tout da nga nekk à la fois yow ak ñoom David ak ñoom Douzaine ñoom Jean Pierre ñoom Petit Tall ñoom Kalidou Saliou Sawzal mhm. da ngeen nekk à la fois international et au Sénégal et au Mali tout à fait loolu presse continentale en quelque sorte. waaw oui. international est tey jii bu ñu doon distinguer des internationaux maliens. Mhm. da ngeen ci bokk da ngeen ciy bokk. ñoom Salif Keita. oui. ñoom Karunga Keita. Hmm? fu ñu leen di distinguer war ngeen ci bokk. absolument absolument pour avoir revêtu le maillot de la fédération. tout à fait mais bon par modestie on <laughs> bi la. waaw man fu ma déggee ñuy distinguer hmm. les anciennes gloires. Hmm. au Mali naa leen ni ña nga aussi. waaw te tiens-toi bien événement boobu li gën a mu tax mu gën a marquant mooy Abdou Seye bi muy ñëw. je ne pas ndax suivre nga kii boobu la. avant mu yegg en 1958 justement. waaw mag ñëpp Afrique yëpp nga ko suivre. am na benn finale sent étienne Reims. Saint-Étienne Reims. effectivement les années 60. 58 59. waaw Abdou Seye ñëw des Princes. Mhm. Thierry Laurent ne français yi levez-vous. pour accueillir Abdou Seye. waaw. le français qui a mis De Gaulle en ballottage. qui a mis De Gaulle comment c'est arrivé Aliou euh, ni ni Abdou Seye mettre woon de Gaulle en ballottage. que moo gënoon populaire ca France. <laughs> Abdou Seye était populaire mu mettre ko am ballottage. mu ñëw Thierry Roland ne ne français pour accueillir l'homme qui a mis de Gaulle en ballottage. Abdou Seye alors donc. waaw ñooñu kenn du leen fàtte. déedéet kenn du leen leen fàtte athlètes yooyu. mu ñëw nag raw ñëpp yàlla def mu ñëw ànd ak français yi mu daan raw mu indi leen Madagascar ñoom Delcourt ak ñoom Pygmal. Mhm. raw leen cent mètres leen deux cent mètres. way way est-ce que Alioune Diaw gëj nañu jataay. Mhm. dañuy daje rek ci ay événement mhm. mais boobu ba léegi maa ngi naan émission ma ngi ci sama poche de. damay nekk circonstance bu nga xam ni daf koy indi u jaraaf. ou équipe nationale du Sénégal li ko indi nag moo di Madagascar mu fi jaar barki démb. tout à fait mu nekk international à l'aube des indépendances 1960 la ka nekk Sénégalais yi jëkk sol maillot équipe nationale ci te bari wuñu woon 16 la ñu woon. Mhm. dem Madagascar moom mii ma nga ci woon mais xam nga pour dem équipe nationale da ngay am club. Alioune Foyer France Sénégal Foyer France di sa club. ma gis ci archive photo boo xamee ni Lamine Diack daf mel ne dafa la war a magee ay 10 ans. peut-être peut-être moins ah, ah. ma gis ngeen bokk équipe même maillot. Mhm. que Abdou Fall. Abdou Fall yow Lamine Diack ah, ngeen bokk may ma ne mais Aliou teel joué. oui xam nga <coughs> man ak Jean Pierre Sène presque ñoo ci yooyu on avait 21 ans quand même bi ñuy dugg ci équipe nationale. ndeysaan. bon bon mooy première sélection. moo tax gérer wuñ ko ni ñu ko war a gérer parce que daf ñu bett. Oh. alors suñu niveau baaxoon na. Oh. parce que boo seetee Petit Al. waaw Madagascar la ko nañ ko jënde yóbbu ko Paris mu joué première division Racing Club de Paris Racing Club première division. bu ñoom li ni ak Sénac. ak Sénac ngandum Racing. ak les Ongoura. waaw Ongoura <laughs> wax nga dëgg. Eh, ñoom euh, euh, Masopis comme. wax nga dëgg wax nga dëgg Petit Al. way way première division. alors pour te dire que suñu niveau temps boobu baaxoon na. trop baaxoon na trop. parce que équipe bu France bu cinquante ñu ci bëri ñu ngi woon ci équipe boobu. waaw exact exact ñoom Ujulaki. ñoom Ujulaki. Ujulaki moo doon joué avancé petit à gauche ak seen maillot euh, bleu blanc. exactement Club de Paris bu Racing Club de Paris kon Alioune Diaw. mi ngi nii ak foyer France Sénégal. bon foyer France Sénégal ak Mayo euh, euh, Lamine Diack ak ñoom Abdou Fall yi nga xam ne milieu année cinquante. Mhm. ñu ngi ànd di sol foyer. Mhm. les souvenirs yi nga gardé au foyer France Sénégal. di ma souvenir ni ma gardé moo tax. je crois que y' a deux ans recevoir nga ma leen di defal. benn hommage. ñi gaañu. waaw en commençant par Pape Gueye Fall. waaw. ñoom Maguette Diak. Mhm. ñoom patron Diémé. ñoom Jeune. ñoom Omar Ba. ñoom Moussa Ndiaye et tout ça. xam nga man yàlla dafa def ma commencé Espoir Dakar. Mhm. jóge fa dem foyer joué ñoom ñu fusionné. voilà ma nekk fa dirigeant. wax nga dëgg. dirigé équipe bu foyer yëpp gagné plusieurs coupes. Mhm. ak ñoom Victor Dia ñoom Lamine Sarr tout ça ñoom ñëpp man maa leen géré woon ak Jean Mendy tout ça. kon mi ngi nii Alioune Diaw bii booba tàng la trop sax mi ngi nii foyer France Sénégal ñu ngi nekk ay booru année 57 di yéeg 57 di yéeg kii mooy ancêtre jaraaf foyer France Sénégal moo mook Espoir Dakar Alioune jaw moo ak accroupi nii euh, deuxième sur votre droite Alioune Diaw ci gauche am Petit Tall la fa nekk moo demoon Racing Abdou Karim Tall décédé du Ndaw Sounkarou Traoré moo nekk ni euh, sur votre gauche bu ñu yéegee si le Mamadou Ba du Chimiling ici en civil c'était les libéraux Sassé Ndoye Kassé Moussa Gueye Loiseau le voilà Lamine Diack Lamine Diack mu ngeen di dégg booba temps mook Alioune Diaw mi joué ndoon nañu Lamine Diack était un redoutable milieu et très grand tireur de coup franc Ndiaye Mamadou moo nekk ni sur la gauche de Lamine Diack kon gis nga li ma wax léegi diggante Alioune jaw ak Lamine Diack dañu bokk jouendoo au foyer France Sénégal Lamine Diack yi joué avec des lunettes dafa daan yeew élastique ci euh, catu lunette bi pour que mu bañ a wadd il jouait avec des lunettes mu ngi nii ànd ak Alioune Diaw bokk ak moom benn maillot foyer nous sommes à la fin des années 50 Alioune Diaw en compagnie de Lamine Diack au foyer France Sénégal. xam nga bi ma déggee fusion Jaraaf dama ni. Euh, Alioune Diop ñaari part lay am. paaru mhm. Espoir Dakar ak paaru Foyer. tout ah, parce que bi Espoir Dakar jógee Gorée. ba mhm. Gorée lañ jógee Gorée lañ jógee. Gorée pour defi Espoir Dakar. Mhm. mais yow. nga nekk ci diggante Espoir Dakar ak. parce que ñoom bi ñu defee Espoir Dakar. ci suñu koñ encore waaw dañ la doon séenu pour nga ñëw coow loolu ñëw na ba ndar. xalale nañ ko effectivement. ak maam Abdou Sène lañ doon séenu Espoir Dakar. ñëwul maam dem Abidjan. jafe woon na dëgg loolu. pour maam Abdou moom dafa mujj dem Afrique. dafa dem Abidjan Afrique dafa na. nga Espoir Dakar. sama problème mi ngi Espoir Dakar ñoom ñoo créé ñoo ko créé. moom ñoom Kouye ñoom Euh, comment l' appelle Omar Sagna et consort ñoom équipe bu solide. après ñoom Matar ñëw ñoom ñu bàyyi ñoom dañu teel a bàyyi ñoom dañu a fekk si. waaw. jënd ñoom quelques fekk sélection Dakar dañ doon joué. Ah, mais ñoo doon nekk suñu adversaire ah, finalement parce que ñoom Karidor ñooñu dañu bàyyi. wax nga dëgg Diaw. ñoom Louis Camara ñoom kii ñoom. Euh, Euh, Daouda et consorts Sibirikone et cetera et cetera alors donc mu fi jógee bokk naa Espoir Dakar parce que sama cosaan la. oui oui. mais foyer. foyer fan ñu defalee lépp. moo tax li yaat ma di wax souvent il faut nit ñi di bàyyi xel nous sommes en train de de former des chômeurs te war nañ ko éviter. professionnels yi ñuy def nii te jànguñu métier baaxul. baaxul déedéet. xam nga yow su ma la gisee. ci fu ñu mën a tase rek ñaw. wallaay su ma la gisee xam nga ban image mooy yéeg ci man. Mhm. benn quart de finale coupe du Sénégal de football. bu ñu dajee à Saint-Louis. Saint-Louisienne tey mooy Linguère. Mhm. Foyer tey mooy Jaraaf. Mhm. ñu daje en quart de finale à Thiès. tout à fait ñu def deux éditions. Lamine Diack moo doon entraîneur. bu njëkk bi 3-3 lañ def. deuxième bi ngeen gagné leen 2 mhm. ak benn Camerounais bu ñuy wax Jean-Claude Moulangi. Moulangi man souvenir boobu mooy ñëw. xam nga lu marqué ci kii bi. Ah. dañuy jouer premier mi-temps coup d'envoi laal ñu bal bi. musuma gis équipe bu am cohésion bu mel na douzième defe naa moo leen yore woon. seen la ñu yore woon. ñu daal ba bi Saint-Louis di marque bi laalu ñu bal bi. c'est vrai moo marqué bi bi je crois. premier mi-temps mi jui joué joué mënuñu dindi bi bi deuxième mi-temps ñu ñëw joué joué ba mu yàgg ma gis ni Cheikh Soun était fatigué. ma woo Vieux il y avait vieux carré chocolat. voilà moom vieux carré. ak ak ak yooyu vieux carré chocolat. Euh, Sambay kii Sambay. Euh, ak May Sambay. May Sambay ma woo vieux carré ne ko kaay joué milieu terrain ci Cheikh Thioune da ngay porte balle bi parce que sonn na ma ñëw yow man maa la marqué. wax nga dëgg monsieur Elie Droit monsieur Elie Gauche. wax nga dëgg Alioune Diaw wax nga dëgg waxtu ma la gisee. boobu match mooy émergé. Euh, te je me souviens vous nous avez éliminé. Mhm. en quart de finale 2-1. 2-1 seen demi-finale accès wote ñu yóbbu ko daal ñu yóbbu ko Ndar. keroog Soter Soter moo ñu marqué deuxième bi. voilà leen si wote éliminé finale ak Corée. exactement su ma la gisee ñaw. <laughs> boobu souvenir mooy ñëw ci man. Eh euh, nga nekkoon gaucher naturel la. wala les deux pieds des deux pieds mais man ak Alaaji Sarr waaw bu gore je crois que ñun fi nekkoon vraiment deux pieds yoo xam ne kenn mënu ko distinguer si si si si waaw les joueurs des deux pieds man daf ma kii wax nga dëgg gis nga Aliou Ndiaw lay dalal dañ jóge ci équipe nationale bu Madagascar daanu fi ci foyer France Sénégal bi nga xam ne dafa di njabootam la ñu jàkk di xaritam di magam mu ànd ak Lamine Diack à vie war naa leen tout à l'heure photo foyer bu nga xam ne def ci ànd ak Lamine Diack certes Lamine Diack ak mag mais teewul ñu bokk génération yëg naa ni fan yi yéen a ngay pareel benn mouvement di soutenir Lamine Diack waaw dañ ko dañ ko lancé rek je crois que votre ami président Souri xam nga mooy président kii. Malick Sy Souri. waaw bu ancien footballeur yi. oui oui dafa seetlu idée boobu ñu ngi ci di ko étudier quoi. Uh-huh. bu ñu paree rek dinañ la ko wax. très bien wax fu ñu koy defee ak parce que quand euh, amel nañ ko Lamine Dia. jërëjëf non Lamine ñëpp. amel ko sax foyer wala jaraaf ko. Sénégal yëpp ka ka parce que bu amee ko xam Lamine Dia xam naa ne <laughs> ñi ko xam man ci laa bokk. wax nga dëgg <laughs> te très loin sax parce que après sport yi dépendoo politique. wax nga dëgg ca Médina foofu wax nga dëgg. wax nga dëgg. lu yàgg sax. yow yàgg la mel. sax trop trop. li ma waaw man yi da suur la bu ñu def ko parce que oh. nag kenn du ko. waaw lu ñuy fësal. dañ koy def rek bu ñu kiiyee rek dañu ko def. ci ndànk ndànk rek. très am na ñu ko xam il n'y pas longtemps am nañu ko xam il n'y a pas longtemps comme président de la section de football du Jaraaf mais mi ngi ànd ak ancêtre du Jaraaf depuis les années cinquante c'est-à-dire moom moom Jaraaf gis nga léeg-léeg ma dégg ñu ni foyer Fran Jaraaf a gagné la coupe du Sénégal en 67 68 ma leen non bu leen tax victoire foyer keneen <laughs> waay. dëgg la yéen ñii ñii dëkk moom. waaw euh, euh, dafa xaw mel ne que da nga da léegi xale yi ñoom Ndofène. waaw dañu leen poussé. c'est poussé poste bu nga yore woon la waaw effectivement boobu la Ndofène yore léegi. bon parce que dañuy dem mu am moment donné boo xam ne d'ailleurs loolu moom moo métti ci gendarme parce que problème gendarme pour ñu ko mun régler. parce que ñun ñooy raflé. parce que équipe mu mel ni gendarme bu ñu soree. day bloqué jaraaf day bloqué Gorée. parce que suñu adversaire. suñu partenaire. oui oui. man bi ma sentir nii affaire baa ngi bu métti Abdoulaye j'ai fait plus que plus de cent maisons. ci ancien foyer Mané. Mhm. jaraaf. waaw dem seen kër pour ñu dellu si. parce que maa ngi sentir ni jaraaf mi ngi doon sonn. wax nga dëgg waaw gan sonnoon na mënatul woon continuer. wax nga dëgg. alors xale yi ñoom Cheikh ak Cheikh ak yooyu. oui oui. et finalement finalement ñu ngi baa ngi nii def nañ suñu wàll. waaw et sans révolution. sans révolution amul benn problème. voilà amul benn problème. dénk nañ leen en tout cas li nga xam ne ñun ñoo ko moom. voilà eh, parce que bu ñu ñu continuer la accompagne bu ñu ci boole ñu toog wax nga dëgg def def la Alioune Diaw euh, équipe du Sénégal ca cosaan la première 1960 <laughs> 1960 ñu dëkk sol maillot équipe nationale dem Madagascar Madagascar bi fi jógee barki démb moo ko dellu am na ñu la gëj gis depuis foyer. waaw am na ñu la gëj a gis depuis bi nga nekkee président section football. Mm-hmm. tey jii ñu gis la ci ñëwoon démb di nag sa émission parce que yow li tax ñëwoon démb di sa émission première équipe nationale ku ca joué. Mm-hmm. ñëwoon ñu ngi sant la plupart dem nañu tey. Uh-huh. sur les douze ici je crois que il en reste trois. wala quatre waaw et fekk moo gën ci ñun. amiin amiin jaw yàlla fekk moo gën ci ñun ni ngi lay yónnee nuyoo nag ñu si kontaan ci moom. jërëjëf. kontaan ci moom trop ci li. yéen a bokk Médine. waaw ñoo bokk suñu Médine. wax nga dëgg di seen nijaay di seen papa. wax nga dëgg Diaw wax nga dëgg parce que Elimane Ndour. nañu wax nga dëgg. ñoom ñoo ñu tette woon. wax nga dëgg wax nga dëgg. kon yegsee fii ñu xam ne Médina. vraiment. dafa barkeel dafa barkeel mi doon si dafa barkeel waaw dafa may lancé daal mooy surtout en direction de l' équipe nationale. Oh. nañ leen bàyyi ñu liggéey waay. waaw nañ leen bàyyi ñu liggéey. ñu liggéey affaire possession yooyu mënuloo def résultat bu mel ni bi nga def nii ñu naan la football bi des objectif bi lan la doo gagné. gis nga. ñu di defaru Alioune da nga wax benn loo xam ne man sama bopp xaw ma ko woon. waaw. bi ma ne attention ci Madagascar bi. waaw en 60 bu ngeen fa demee un seul France a leen éliminé. la leen éliminé waaw France loolu doy na tegtal. kon nga xam ne yàlla y a qualité. mais bien sûr jërëjëf Diaw. mais nañ ñu bàyyi xale yi ñu continuer. jërëjëf Diaw seen encadrement bi yàlla na sax. jërëjëf ñu continuer. oui dinañu am résultat c'est sûr. Ablaye loolu laa doon wax. jërëjëf Alioune moom laa leen indiloon. Euh, mu nekk sama mag dans la vie nekk sama mag au sport football nañu maak moom. coupe du ci benn terrain. à Thiès en quart ma amoon nag ci moom cofeel <laughs> pas parce que daf di sama doomu bàyyi na man <laughs> mais ay royukaay la ñu woon ci discipline xam nga foyer dafa nekkoon équipe bu nga xam ne dañu daan wax attention vous pour faire du football nous réalison aussi des hommes waaw par le biais du football wax na ko tout à l'heure kon Alioune Diaw merci des venu merci Ablaye euh, euh, dama la ba waxtu wu ma gisee loo xam ni mën nañ ci yokk mm-hmm. naa la fekk fa nga nekk fa nga fa nga toog delloo si la fi mm-hmm. ñu toog waxtaan ci parce que soxla nañu encore sa expérience ak sa vécu mbokk ñëwoon démb ki ma leen indil moo di Madagascar u démb 1960 mm-hmm. sous le maillot de l'équipe nationale mu ànd ceeg ñoo xamee ni tey jii ñëpp imam lañu au sport bokk ak Lamine Diack benn maillot football parce que Lamine Diack fii aussi footballeur et international aussi en 1961 kon su ma leen indilee Alioune Diaw tey jii ci kër gi dama fëgg ci néeg bi nga xamee ni imaamu sport bi ñoo fa war di génn hmm. depuis la première équipe nationale bu mu bokk en 1960 ñu nekkoon Madagascar Madagascar bi fi jóge barki démb moo tax ma dellu si Alioune Diaw Alioune jërëjëf. merci la cher frère merci. merci ànd la ñun ba ca kanam a kanam a kanam. merci beaucoup ba doyal. merci merci laay ñëwoon démb jërëjëfati ba